match Sénégal ak équipe bi li nga xam ni mooy Tunisie euh, fi mu toll nii gone Tunisie yi daanaka ñoom it koy togg pour bëgg daje ak équipe bi nga xam ni mooy Sénégal Sénégal fi mu toll nii daanaka euh, kon euh, mi ngi bëgg a jar waaye bu leen fàttee dem fële a fere feñe ci sama waa ji jàmbaari fàkk tëdd ji bu ko defee ngeen préparer seen korité gu mucc ay loo bi nga xam ni moo am fële ca fere feñe ci marché bu ndaw nga xam ne sama waa ji moo fa ne waaye yéen ñëpp def leen ndànk leen yéen ñëpp ay kenn comme ci man di doon da nga gisee ci image yi ah, dara doy fa li nga xam ni moo nekk ci champion bu mag bi nga xam ni mooy soppey na bi ah, soppey na bi moo leen di yi ci ñaanal waaye Tunisie tamit daanaka bokk na ci xong nopp yi nga xam ne bëgg na noo daje gone Alioune Cissé yi nga xam ne ah, fi mu toll nii daanaka ñoo gën a jar fii ci bile dëkk nga xam ne am na solo bu baax a baax gone yooyu nga xam ne daanaka bëgg nañu match amical boo xam ne bu fatt taraj la match amical boo xam ne daanaka danañu natt seen doole ñoom gone

bi nga xam ne Chelsea doon na ko football ak Aston Villa match boobee nekk benn première boo xam ne daanaka français bi gëj na koo def nga xam ne lu yàgg yàgg ay weer yoo xam ne laalul bal loole tamit nekk lu mu del si dellusiwaat mu mën a gëmaat ni football dëgg-dëgg ma tellu fa mu nekkoon waaye nag gone gi digg milieu terrain bi ngàttaan bi la mu ca daan def fi mu toll nii mënatu ko ndax bu mu daanaka daa xaw a mel ni ku ku wesaaroo Iliman Ndiaye ab kibam démb am na victoire boo xam ne bu sedd guy la victoire boobee sax tax na mu xam ne daanaka moo ca ne dëgg-dëgg